mu ne siiw na ne yonante bi ba muy génn àdduna fekk na mu tayle woon mbubum xareem benn yahoot yahoot ba jox ko lu bokk ci xeetu pepp lott moomu la ko yahoot ba jox yonante bi tay la ko mbubum xareem moomee loolu lépp tegtal la ci woyefal gu woyefaloon àdduna yàlla mayoon na ko montagne yi soppiku wurus mu moom leen ëppale ñëpp ñëpp waaye mu jomb lu loola taamu rekk di jaamu bi yàlla boo xam ne day xiifal boppam di sonal boppam te yàlla rekk tax wal umm ndey ja akhbarat xibaar na bi kaw shibahi ci nekkuk reggaay awala shay'in di aj njëkki dara xat badaa loolu feeñ na min bidaaxin ci ay bidaa mu ne soxna Aysa ne bi yonent bi génnee àdduna liñ njëkk a seetlu ci lu xew te xewatoon tey musiba mooy regg regg googu xewatoon ci jamono yonent bi xam ñu woon lekk ba regg gannaawam rekk lañ gis nit ñi àdduna yaatu ci ñoom ñu dem bay lekk bay regg am ci sax ñu takkoo regg saa yu nekk ne loolu bi daala boo xam ne gannaawam rek la sosu te mënees na ne mooy biddaa bi njëkk sosu ci gannaawam aleykumoo dénk naa leen bil ilmi ci xam-xam ànnal xilma ngir naka xam-xam boo jàngee ànn day mel ne dañ koy dagge laam muy li ànnal ilma bo ci tambale nak nga ne innal ilma ndax naka xam-xam foo mom allazi moy la nga xam ne yedd faaw dana jign an ku mbol si yéen xam aw naqar wala njàqare wala tis tala buhu ak sakom faridatun faratala la moo xam ma matun buñ matale li kulli muslimin ñeel bépp jullit bu góor wa kulli muslimatin ak bépp jullit bu jigen day bëgg jeexal nak denkaane bi mu mujjale ko diglewaat sàkku xam-xam ne maa ngi leen di dénk ngeen xër ci xam-xam ndax xam-xam da leen di tàggaleeg lépp luy tiis ak naqar te it sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen bu ñu nee nag sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit kenn ku ne lay farata ci moom ci xam-xam mooy lu mu tollool rek xam ko julli juróom ak lépp lu ci aju ak cër yàlla dénk nit te am lu ko ci aaye am lu ko ci sant yooyu moom kenn ku ne daa war a taxaw temm ci xam ko fi saasay saasa bu dee ku yëngatu ci wàllu àdduna itam ci xeeti mécc yi mécc moomee war naa daal di xam ci saasa la ca aay ak la ci aayut ndax mu mën a sàmmonteeg def la ci yàlla bëgg bañ ca aw fu yàlla gërëmut lu aju ci wàllu jaay ak jënd it kenn ku ne war nay xër ci xam ko bu baax ndax ku ne ndax nit ko and ak sagom nek ci aduna li ci ëpp ta ñàkk jaay mbaa mu jënd kon nag war naa xam lu aju ci àtteeg jaay ak jënd nga xam ne bu demee ba moom ci boppam du jaayal boppam du jëndal boppam it ka yu féetale loola doon koo xam ne xam na loola ba du ci jàdd yoon sàkku nag xam-xam ba géeju ca man caa teete mbokki jullit yi moom bu ko ñenn defee rek mu doy waaye nag faaw war naa am ñenn ñoo xam ne dañuy féete ci googu wàll ba di ci teete mbokki jullit yi bu ko ñëpp bokkee sàggane rek ñépp bokk am bakkaar daa bokk ci xeeti faratay kifaaye yi وأفضل العلوم بغل جي خام خام يا بإطلاق جي أك بويل بإطلاق موي جي أمول خيجك سين توحيد ربنا موي يتل سنو بروم بلا شقاق جي نايو ثم الكتاب طب القرآن والحديث أك أديس والفروه أك بانغاسيتي موي فقه wa baax daxaa nekk na seen gannaaw al alaatu jumtukaay ya di ngir bixaa nekk na ci ñoom ak suronxu man gaa tàbbi ci xam-xam yooyee di xam-xami diine xam-xam yi dañoo gënante ba ci gën nag mooy tawxiid ndax tawxiid mooy xamle li ñu war a wéetal yàlla suñu boroom xam ne moom rekk mooy yàlla mu bokkut ak moom moo ko sàkk mu di jaamam xam-xam bi jàngale nit ñi wóotale suñu boroom bañ koo booleeg dara moo gën ci mboolem xeeti xam-xam yi xam-xam bu ne la muy jàngale rek lay tollool daraja te yàlla moom mooy sangub lépp kon nag xam-xam ba koy xamle mooy doon sangub xam-xam yi te it tawxiid rekk lañ mën a am moom dong tegoo ca leneen daldi mucc beneen xam-xam bu bokkut ak moom te àndut ak tawxiid du am solo duñu ko jàppe sax xam-xam ci misaal yonante bi doon na seeti yëfoot bu tawatoon ba mu demee fekk ko ci sukuraat mu ne ko waxal laa ilaha illallah muhammad rasulullah yéefar ba doon xool baayam ba xam baayam dana ko aayam déet ne ko bul ko wax baay ba ne ko wax li la muhammad wax loo naka mu wax rek laa ilaha illallah muhammad rasulullah yonent bi ne sant naa yàlla ci bi mu xeetilee yahood bii ci sawara te jaare ko ci man nga xam ne kon tudd rek baat boobu day tax ni daldi mucc faawu faawu jullit bi nag na muy tàmbalee wéetale yàlla mooy mu gëm ne yàlla am na te kenn amalu ko moom ci boppam sax amalul boppam dalewul fenn di am fenn te it dara ci matadi laalu ko te melawoona gépp mat manam melawoona lépp luy xeetu mat te dara luy matadi jegewu ko noonu lay tàmbalee taw xitam di yéeg jëm ca kaw bu ca mënee boole jàng tegtal yi nga xamee ne day yokk ak gën bu da jafe na tàmbalee ci pas-pas boobu rek gëm sax ci l'islam ni mu ko daan japp ndé japp ni la ndax xëy na yuñ war gëm bokoy koy man na bari waaye ci gattal rek juróom ben dong la muy yalla ci bopam ak malakami yi ak téeréem yi moy téere yi wàcc woon ci yonante yi ak yonante ya nga xam ne ci ñoom la wàcc woon téere yi ak bis penc akub dogal juróom benn yi ëmb na lépp lépp lu ñu war a gëm ci lislaam te moom bari na téere yu ko teqale ba ci tasawudu zixaar bi ngay njëkk a sax sëñ bi da ko caa wax teqale ko ak yeneen téere yi mu taalifaat yépp rek noonu la ko cay teqalee bu xam-xamu tawxiid jàllee alquran muy xam-xamu tafsir moo cay topp bu xam-xamu tafsir jàllee xam-xamu addis topp ca bu xam-xamu addis jàllee xam-xamu fiq topp ca ñeenti xam-xam yooyu ñooy xam-xami diine te it lañu tegaloo tawxiid jiitu xam-xamu tafsir topp ca hadis topp ca fiq topp ca gannaaw yooyu nag nee na am na xeeti xam-xam yoo xam ne wax na ko ci gannaaw ay jumtukaay lañu may boo leen jàngee ba xam leen dañ lay dimbale ci nga mën géeju bu baax ci alquran ak hadis ak fiq ak tawhid me nga xam ne moom nga njëkk a tudd alaykumoo dénk naa leen bi suhbatil axyaari ci àndaaleeg tànneef ya fii talabil ilmi ci sàkku xam-xam li ngir jëmmi mi aji bind wastaxiboo na ngeen àndoonteeg alwariha aji sàmm ja wal mujj aji farlu ja al mustaqima tay aji jubja fatanalo kon da ngeen am ar rashada jubga ga waju ngeen di teet moy da ngeen di sori aka moytu al kaslana aji tayel ja wal mughaffala ak kañu yegadil moy ku yegade yegadi ku sagana sagan wal mufsida ak aji yaqja al fatana kadi ak fitnalekat taxawoo kon ngeen làq al amala mébét ma muy yaakaar ja muy la ngeen bëgg ida ngir al qarinu aji lëngoo ja yàqtat yi day roy bil qarini ca aji lëngoo ja mooy ka muy lëngoonteel fa man yu saaxib ku àndaaleeg ar rachida aji jub ja yurshat kon jubaleef ko dafa wax ne nag bu ngeen dee sàkku xam-xam itam bu leen def ku ngeen jot rek àndal da ngeen di seet kan ngeen di àndal ndax ki ngay àndal dalay wàll te doo ko yëg kon na ngeen di ànd ak ñu baax ñu di ay tànneef ñu xër ci lu baax seet leen ñu mel noonu ngeen di ànd ak ñoom ka ngeen di àndal daal na amuk sàmm di moytu lépp lu lënt rawante lu araam amuk farlu lool di xocc ci tegu ci sunna bañ a wàcc mukk sunna ku mel noonu moom ngeen taamu ci àndaale li ngeen moytoo ànd ak nag ku tayeel mbaa ku yëgadi mbaa koo xam ne day yàq ka yàqaate rek ak a tegee fitna koo xam ne daal bu ngeen àndeek moom dangeen ngeen cee wàññikoo waaye du ngeen ci yokkoo ku mel noonu du ngeen ànd ak moom mukk mukk mu ne li tax nag ma dénk leen ngeen tan ko ngeen di andal moy ki nga andal faw da ngay roy ci mom mo roy ci yow nga xamne ne ñoo gis ñi and buñ taggo rek dañoo bokk ay mbir ndax ñu bokk ay mbir seenu and du yagg motax na kon andale, mata tan bu baax te mu ne ko andale ku jub xoc faw rek mu la jubam goge huna intaha lamate mom téré bi walhamdu xeeti cant yépp lillahi ñeel na yàlla kama salaatuhoo niki doli teralam xala imaami la xulamaa yi yàlla na nekk ci ilimaani way xam ña muhammadin te moo di muhammad salla yàlla na dooli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom maanaa la li fekk am na duu taallumin boroomu xamlu munaahu ay mébétam mu ne nag foofu la téere bi yam ngi dellu di sant yàlla di julli ci yonante bi li fekk nga xam ne ku wut xam-xam te wute ko ni mu dénkaane moom sëñ bi mu ngay am lam bëgg ca xam-xam ba di ca amaale ngërëmu yàlla ak faju tey ëllëg li fekk looloo ngi am te looloy am incha allah yàlla saxal salaatu salaamu ci yonante bi ak ay mbokkam ak i صحابام